ok pourquoi. c'est-à-dire nous da attention. Mm-hmm. mais Sonko ful une lay waxal la ko mm-hmm. am Vous avez mm-hmm. rek nga programme. le débat économique fait. ko buzz. quand tu es sûr de ta victoire à une semaine des élections yow yaa yore ful ful kan moo koy song. <laughs> dëgg dëgg. ful kan moo koy song xanaa da ngay xaru yaa ngi dégg yow nga yore le cortège le plus sécurisé. Mhm. du Sénégal. waaw moo yor yaa ngi dégg c'est-à-dire moom moom moom c'est un maniaque de la sécurité. Mhm. ndax ndax ñu nekk autour de lui booy moom la ñuy woowee les mhm. ninja boo leen gisee da ngay tiit. ak seen yu noir def nii masque tiitalaate mhm. yore ay arme amna ko xamné fusil à pompe la yor mhm. wa légui yow lolu yëpp ding ko am mhm. ba paré di perdre le contrôle Wow. non ma ça me pose problème yow fu mu ni transhumant transhumance ñu ngi ndiran jëm sa kaw wow yow ngay wax di fixer say objectif yow né nga bi nga démé fuuta conquérir nga la fuuta né nga Casamance titre foncier la le centre du pays mokkal nga ko ba mu mokk mhm. waaye yow legui lolou yeb argument yoy yeb yow xam nga la nga wara def mhm. tok reetaan naa bu len yak xew gi la beug a bagn bañ mhm. mais man discours yoy la don xaar ci mom des discours joyeux parce que nit quand tu es sûr de ta victoire surtout nim ko xalaatee avec des scores soviétiques mais normalement tu ne dois pas perdre le contrôle. mm -hmm. mais lamay wax rek lamay <laughs> wax rek. Mhm. xam nga ay sotu yow ak ki euh kii abu. Mhm. yéenay douter rek ba tay man ba tay dama dute man boobu xam nga xam nga xam nga ça fait 2 mois. sénégalais da la laa xam nga man ça fait 2 mois may wax. Mhm. man ça fait 2 mois may wax. mais man lamay wax. Sonko xam na man xam naa élection 17 novembre bi du élection. Mm-hmm. Et le passé va perdre les élections. Il le sait, je le sais. Mm-hmm. Non, la l'air ni nous <laughs> Non, da ni bëccëg ni xolal. Mm. Man damay tek sama reer fi. 20h. 20h dimanche 20h. Damay nous sama reer di reer nan ko sonko Parce que le résultat est mm. Déjà gifle bu muy à Dakar, gifle <laughs> mais non non non man li ma xam man man li ma xam sax ñemewu ma ko wax parce que man ba léegi gëmu ni élection day am le 17. dut na arrêté loolu nag. non ah toog leen. ah waaw dut na ah, ah dut bàyyi ma nag. yooyu <laughs> euh, euh, euh, <laughs> leen. xam nga. maanaam yaa le kii moo ko pastil. ah moo tax dañ ko pastil ah pastil dafa xew moon pastil. ah dama il faut pastil la. Ah, il faut tax wax naa lu rëy de. nee naa parce que boo ko gee da ngay zembere. <laughs> ma da zembere nga. Ah. est-ce xam nga benn affaire. Hmm. la chute du régime. Mhm. de Sonko. Hmm.